lillahi hmm. rabbil bayti wal wujubi hmm. munazilil wahyi wal ayati wal kutubi hmm. badal nawmi bihamdillahi muftatihan kama atati ibtitai dibi wal kutabi wa bisalati ala alhadi usarrifuhu muhammadin tahiril araa wal fatihil xatimil wal fatihil xatimil manuti fil kutubi qad jaana bi kitabi rabbi anzalahu màndarga yi mm-hmm. teg leneen li ñooy wax te dëgg la mm-hmm. kutubu agul kutubi ak téere yi moo mm-hmm. wàcce itam mboolem kutubu samawiya moo wàcce itam mboolem kutubu samawiya mu koy sant ci xewal googu waaw alhamdu mboolem cant lillah ji soxla ñaal borom bi ñaal sama borom te bil bay kay borom néeg bi mooy kaaba tàmbalee naa mhm. naf mi suma wëy mhm. muftatihan birom ma daa ji ubbeekoo bi hamdillah mhm. walla badatu tàmbalee naa naf mi suma bi hamdillah muftatihan birom walla ma daa ji ubbeekoo suma wëy maa yàlla doon suñ ci bëggee barke dañ ko maata ni ki mu dikkee moom sant yàlla moomu su ti tay si bi ci njëlbeenal alquran ndax booy jàng alquran ci ngay dalee alhamdulillahi rabbil alamin wala su ti tay si bi ci njëlbeenal sikar sikar yu bëri ci lay dalee wal xutta bi ak xutba yi naka noonu itam waxee xutba yëpp ci sant yàlla usarrifoo danaa teralee sama wax mm-hmm. bi salaati ci julli alal haadi ci aji juble ji mm-hmm. gannaaw sant yàlla la ma ca teg mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ndax mën na def barke ci wax bi kon lu may teralee wax bi la muhammadin muhammad juble ko yonent boobu na muy tudd muhammad tahil araf karaajin ak ci njëkk sayirin arab kadaaji laf ci gàtt wan na sa bi askan maa mooy mi nga xam ne léppam moo daal alfadihil badri kadaaji gàcceel weer xusnan ci taar xend talaati yi fa fenkam yi nga xam ne boo ne jàkk cëlmayam cëlmay li leer gi ci nekk salaw ne mu ci weer moo gën a rafet weer tax na mu gën a rafet weer wi hmm. al fadhi il badri kadaa ji gàcceel weer xus hmm. nag ci taar inda salaati yi fenkam fa hmm. xaar kanamam al fatihi hubbi lépp lu hubbu hoon waa ñi lépp lu ñu xam ci xam-xam lu ñu xam ci barke lu ñu xam njub lu ñu xam ci didanga yëpp barke bi nent bi lañ ko amee yoon xam lañ ko amee kon mooy sunu bunti yi yëpp alxaatime garaaji mottali yonent yi ki nga xam ne moom mottali yonent yi gannaawam na bi yu dootu am mukk almanwati këri ku ñu mellal suñ ko tubbi ci téere yi ki nga xam ne téere yi jiitu woon daan nañ xam ne ñëwam dafa mellal bu baax a baax te loon ku baax a baax te tawraat ci leen jiit ci téere yëpp xat jaanaa dikkal nañu mm-hmm. bi kitaabi rabbi ci borom téere borom bi mm-hmm. yenent boobu moo ñu indil alquran muy téere borom bi mm-hmm. anzalahu borom bi wàcce na ko alayhi ci moom subhanahu bil mantiqi ci tudduwaay al arabiya bay ko jur arab yàlla def ko muy quran arabiya xayra fi awajin ah baax na foofu le yal na ko yàlla àggal dee def ci barke te ci dee bu def ci jëriñ te ci wàcce xata mu jégal ñu ko xamal ñu lii sabab di jaay rasulillahi kenn qad jaana bi kitabi rabbi shay'an fa shay'an bi hukmi al amri wa sababi wa huwa al-ghinaa allazii laa faqra yatba'uhu wa huwa ash-shifaa'u li zii durrin wa zii wasabi fa qul liman ya'tamik bil-maali yajma'uhu al-'ilmu afdalu min maalin wa min nasabi al-maalu yafnaa wa yabqa al-'ilmu saahibuhu maa daama hayyan rafii'a al-qadri wa-r-rutabi wal ilmu saahibuhu bi raahatin abadan wal maalu saahibuhu bil kaddi wa taabi wa kaana nekkoon na yanzilu di wàcci jibrilu jibril al aminu kare ku ñu hóolu bihi ak téere boobu shay an dara fa shay an topp dara mooy shay an fa shay an ndànk ndànk bi hukmil amri jaateem ndigale sama borom mm. wa sababi ak sabab mm-hmm. alquran moomu nga xam ne mm. jibril la borom bi daan hebal mm-hmm. muy jógee ci asaabu asamaawu duniya da mm-hmm. wàcc seeg moom ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndànk par ndànk ba ni muy jeex hmm. te yu bëree bëri itam buy wàcc hmm. sabab lay lënkoon sababu sàngam hmm. moo war loon aya sàngam wàcc xam ne sababu sàngam ci la aya sàngam wàccee woon dala dimbale ci dégg aya bi te itam taarixam ci biir loolu moo aya yi ñu lënkale ko sabab bi kuma moo ci nekk wa yanzilu doon wàcc jibrilu jibril hmm. al aminu kër ku ñu hmm. jibril mi nga xam ne moom la yàlla hóolu ci wax yum hmm. moo daan wàcc bii ak téere boobu moo daan wàcc ak téere boobu ci xolu yonent bi say an dara fa say an topp dara mooy ndànk ndànk boobu mel amri ci àtteem ndigale sama borom te buñ ko digalee mu wàcc wa sabab bi ak sabab te wàcc gi itam benn lu mu daan lënkoog ay sabab foo moom alxinaaw koom mm-hmm. alladi gu xam ne mm-hmm. la faqara den ñàkk mm-hmm. yat ma woo de ko topp mu ne alquran téere bi yàlla bii koom la gu xam ne ku ko xam ñàkkatoo dara koom la gu xam ku ko xam ñàkkatoo dara moom asifa u mooy li si durrin ñaal borom ak lor wasi wasabin ak borom ak xopp mhm. te itam lu mën a saafara raggi xol yi la xad mhm. jaatkum mawhibatun min rabbikum mhm. wa sifaahun lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil muminin fa qul waxal liman ñaal koo xam ne yaata nii dana mu hittewoo bil maali ci halal yej ma woo mbiroom dana mu ko dajale comme noonu nga xam ne moom dajale xalaat rek la def muy soxla rek mm-hmm. di indi de de xool rek mm-hmm. te génne dara sax mm-hmm. waaye di indi de de xool rek moom man da def lu ñor man da doylu ki mel noonu ci alal na ko aleel mu xam-xam afdal moo ëpp ngëneel min maalin ci alal wa min nasabin ak ci alal boo ko defee seen bu tooy wala min nasabin ak ci askan ne ko ni nga dajalee alal soo ko dajalee woon xam-xam mm. noonu lay gënee ci yow de mm. noonu laa gënee ci yow de mm. xalal da nga koy wattu mu ne fa xam-xam nag moo lay wattu ba doo xalaku xam nga bokkuñ xalal mooy borom a koy wattu waaye xam-xam mooy wattu borom xel bu baax a baax xalal boo ciy joxe day wàññeeku xam-xam boo ciy joxe day yokku moo tax bokkuñ dëgg-dëgg mu ne almaalu xalal yëf naa dafay jeex wa yabqaate day def nag hmm. aleen mu xam-xam hmm. saahibuhoo borom xam-xam hmm. maadaama fii sax na mu hayyan de aji dund rafiul qadri aji yëkkate ko daraja la wa rutabi ak i daraja ki amee xam te di ci def lu baax ko bis bu ñëw ci dundam rek mu ne bisam yokkute jiw ci moom moo tax fi mu ngi dund rek ku yokk lay doon almaalu halal yafnaa dana jeex wa yabqaa dana des nag alilmu xam-xam saahibuhu boromam maadaama fii sax na mu hayyan daa ji dund dana des rafin al qadri daa ji yëkkate ko ci daraja wa rutabia ci daraja waleel mu xam-xam saahibuhu boromam firaaxati nekk na ci noflaay abadan faw mu ne xam-xam day noppal borom ndax moo lay wattu mm-hmm. wal maalu xaalal nag saahibu boromam mm-hmm. fil këdd nekk na ci coono mm-hmm. wattaan bi ak coono ndax yaa wattu kon nga jàng loolu ba beneen yoon insha allah waaw dama ne ko ba mu xaar am na nga ne lazim bu nayya kitaaballahi mm-hmm. fa huwa lana mm-hmm. ajallu min kulli mawrusin wa muktasabi mm-hmm. wasrif ila hirsihi l awqaata mujtahidan wanhad wala tastaxil billahwi wallahibi fa in xafidta kitaaballahi wanfataqat alayka azhaarahu fanhad ila talabi wa xasilin nahwa hmm. inna nahwa saahibuhu hmm. muadamun bayna ahlil fadli wal adabi hmm. man lam yakun aliman bin nahwi kana ida xallal majalisa maadudan min al xusubi kon ñu jàng lool mu ne laasim na nga sëqoo bu neye yow sama ndoom kitaaballahi téereel yàlla bi su fekkee da ngay dàkku xam-xam na nga jëkk jàng alquran ba ñëw mooy buntu boo ca ñëwee rek leneen na yomb waaye boo ca ñëwul nag lu bëri fay jafe fa woomu kitaabullah lanaa ñaar ñi min kulli mawrufin ci lépp lu ñoo doon wa mustafidin ak lépp lu ñuy fab ak itam nga xam baax lu ñuy xam rek bu dul alquran alquran ko gën jëlee xam-xam bu dul ci alquran alquran ko gën a wér xam-xam loolu mooy tax booy jàng dangaa dalee ci ba nga xam ne yeb nga ko jàng ba mokkal ko jàngal laatim na nga tappoo bu ne ya eyow sama ndoom kitaaballahi mm-hmm. téere bi yàlla bi foo bi yàlla bi danaa ñaan ni ajallu moo mm-hmm. gën a màgg min kulli mawrusin ci lu ñoo doon wa muktasabin ak lépp lu ñuy fab wasrif na nga soppat ilaahi bihi jëm ci mokkal téere boobu alaw waxtu yi mustahidan borom nga daal di mu ne loo sonn pour mokkal ko rek jar na loo sonn pour rek jar na wanaat na nga buur na nga wala tastaxil te bul soxla woo billahi ci fo bi ak fo ah da ngay muñal fo muñal yu bëree bëri jël jàng ko bu baax njàng moo xam ne mën naa jur mokkal ko mm-hmm. bu baax da nga ko mokkal mm-hmm. ne badrim na nga mm-hmm. ilaahi bi jëm ci mokkalam alaw xaada waxtu yi muy tey dem rom nga daal di góorgóorlu da ngay farlu ci mokkal ko wan xat na nga buur nga bañ ca tayal wala tastatil te bul soxla woo billahi wi ci fo wala nga fi fa in xafista boo mokkalee nag kitaaballahi téere bi yàlla bi wan fataxat te hubbeeku alayka ci yow asaroo ay tóortóoram ay fulóoram fan xat na lu buur ila tala bi jëm di sàkku xam-xam soo jàngee bi yàlla bi ba xam ne mokk na da ngay xam ne xam nga jar sant yàlla xam nga jar sant yàlla su nga sant yàlla bu baax a baax mm-hmm. waaye dunne nag waratu laa soxla yokk mm-hmm. ndax am na lu ja war a topp mm-hmm. nga dem ca la ca war a topp te muy sàkku xam waaw boo jàngee bi yàlla bi ba mu mokk da nga xam ne jile yàlla ko def ci yow su baa nga sant ca yàlla waaye nga xam ne it nag dunne nit fii la war a in hafista boo mokkalee kitaab allahi téere bi yàlla bi wan fataqa te hubbeeku an lay ka ci yow ay tóoro ay tóortóoram wala adabi ak adab hmm. mu ne ku hmm. bu doon ku ñoo xeeb ci biir borom xam-xam yi hmm. ndax borom xam-xam yàq baat la ñoo xeebee nit te boo mënee naxwu doo yàqati baat te waxumaa ba yàq rek lañ soxla woon ba de ko wax. du ko mën a fi indi. loolu moo tax yàq baat la ñoo xeebee nit. soo mënee naa woon doo doo yàq baat. waaw duñu la xeebati. waasil na nga amal a naxwa naxwu. inna naxwa naka naxwu saahibu borom. mu azamun ku ñu màggal la. bayna alil fadli ci diggante borom nga nii. wala adab bi ak adab. man lam yakun ku nekkul aaliman daaji xam bi nax bi ci nax bi mhm. mu nit su xamulee nax bi mhm. kaana dafay nekk isaaha la bu wàccee mhm. almajalis a jataay yi maa dooran de ku ñu le minal xusu bi ji banti mu ne nax bu soo ko mënulee ak lu ñu mën a wax ne xam nga ko soo demee jataay yoo xam-xam dafa mën a doon ku wax la wax yoon Mm-hmm. kon ñu jàng loolu beneen yoon incha allah ma doon mu ci yàq ba ta hurmatahu wañaalu bil birri mm-hmm. wa tawqiri misla abi mm-hmm. qabbil yadayhi isa laqitahu abadan fa kam abadaka min ilmin wa min adabi wa kun kariman hmm. haliman haqilan fatinan hmm. munazzahal xulqi hmm. an taysin wa an ghadabi wa sun lisanaka min hajwin wa min safahin wa min mujawaratin wa min muhawaratin aw basiwal kadibi jàngal mu ne wax fas na ngay wattu mm-hmm. li say xeeke ñaar sëriñ sa sëriñ bi mm-hmm. maa yi nes te fii yaa ngi dund mm-hmm. xurmatahoo xormaam mu ne xam-xam boo ko jàngee ci nit xamal bu baax ne xaqam la ci yow yaa ngi dund nga de sàmm xormaam ndax cër bi ko yàlla sédd ci yow mm. loolu la laaj seetlu mm. ko baax a baax mm. waaw cër bi ko yàlla sédd ci yow loolu la laaj wax fas na ngay wattu li sayxee ka ñaar sëriñ sa sëriñ bi mm-hmm. maa yi nekk sa feeg yaa ngi dund mm-hmm. xormata hoo mm-hmm. bi nga xam ne moo lay jàngal xam-xam dala teg ci siratullahi al mustaqim fekk yaa ngi dund mhm. del bàyyi xel xorma bi ko yàlla sédd ci yow mhm. nga de ko matal bu baax mhm. wañaalu na nga ko def fil birri ci jekkal mooy fonk wa tawqiiri ak weg mooy jox respecté misla abi kem bàyyi mu ne fi nga teg bàyyi foofu nga koy teg bàyyi dafa jur jëmm waaye sëriñ mooy jur ruux bàyyi mooy sabab ci xam mm-hmm. waaye sëriñ mooy sabab ci xam jëriñ mm-hmm. moo tax seetlu bu baax a baax mm-hmm. maanaam bàyyi mooy sabab ci xam waaye sëriñ mooy sabab ci xam jëriñ moo tax ñoo seq ñaari dégg nga dégg nga ko waaw man lam yabarran haalimal maqbula bil haqqi xaana allaha wa rasula xelam bu baax a baax mm-hmm. ba mu àgg rek man lam yabarran aliman maqbula mm-hmm. bi laqi xaana allaha wa rasula mm-hmm. ba mu àgg rek gis na ko bu baax a baax wa fas na nga wattu li say xeeka ñaasa sëriñ bi maa yi nes te feeg yaa ngi dund xurmata woo xormaam wajaalu na nga ko def mislaa bin mu rek kem bàyyi mm-hmm. fil birri ci jekkal mm-hmm. wa tawqiire ak wekk xabil mm-hmm. na foon ya day ñaari loxoom isa laqiitawoo boo dajeeg moom abadan faw foo dajeeg moom na ko nayu nayu fonkeel fa kam afaadaka bëri na lu mu la jëriñ mm-hmm. fa kam aji bëri afaadaka jëriñ na mu la ko mm-hmm. min ci xam-xam mm-hmm. wa min adabin ak ci teggiin ndax la la jàngal mu leer jural na la xeewate gu bëri la leer nga jëfandikoo ko jural na la nite gu mat lan la mu mu leer jural na la xeewate la leer nga jëfandikoo ko mm-hmm. jural na la xiwe selma bu baax a mm-hmm. te nit nag lu ko xee mm-hmm. xiwel ko dara gënu ma wahaballahu limri in hibatan anfaa min aqlihi wa min adabi mu ne yàlla mayut nit loo gën ci moom gu ànd ak xel mu sotti mu ànd ak hiwe mu ne yàlla mayut nit lu ko gën maa wahaba llaahu limri in hibatan anfaa min aqlihi wa min adabi huma hayatul fata fa in fuqida fa faqduhu lil hayati alyaqu bi mu ne bu ñuy wax dund ñaar yooyu la waaye ñaar yooyu bu amul nefi rek la mhm. nefi nag bu amul njëriñ mhm. fata mhm. fa in fuqida fa faqduhu lil xayaati al yaqubi selm bu baax a baax gannaaw na noonu te may googu da nga bàyyi bi ko yàlla sedd dégg nga fa kam aji bëri afaadaka jëriñ na la min helmin ci xam-xam mm. wa min adabin ak ci teggiin mm. wa kun na nekk kër yi man de ku tedd mm. na nga amee jikkoob tab jikkoob baax ci nit ñi nangu leen a dimbale nangu leen a jëriñ nangu leen a yaatal gis nga ku baax a baax ay taalibe noonu lañ war a dëkkee da nga war a labir ci nit ñi nangoo dimbalante ak ñoom nangu leen yaatal ci sa bopp loolu mooy maanaam karam bu baax loolu mooy maanaam karam amee téere boo jàngeewu hmm. nangu koy xabal ka nga xam ne mën agul a am téere bi soxla téere ba hmm. boo amee këyit yu la ëpp hmm. nga nangu ca may ka bëgg a bind te amul këyit soo amee bindukaay boo ne ku di bindee nga nangu koo xabal ki ki bëgg a bind jamono bi amul boo amee xéwal ak ñam. nga nangu ca yaatal ñi nga xam ne man nga ko bokk ak ñoom. su nit nekkee ci loo xam ne ëpp na kenn. nga nangu ko ca ngëb li. ah noonu la ay nit da dëkkee. waaw parce que mbaax rek ngay wut. mbaax na duñ ko wutee mbon affaire ñàkk njëriñ ko baaxut. ñàkkaatal ci ni dara. ko jikko ko bon la te nag mbaax duñ ko wutee mbon. waaw kuy wut mbaax mbaax ngay def. te nag mbaax la ñuy wut. loolu bu baax a baax. waaw da nga war a nekk kërim mooy ku baax a baax. Hmm. ku xam ne mën naa muñal nit ñi lu bari. Hmm. xattan na ci ñoom lu bari. Hmm. su fekkee da ngaa nekk aw nit. noonu nga war a nee ak ñoom. gis nga bu lewet mooy nga xam fu ñuy jaar ne xilmu mooy xelu. xam fu ñuy jaar nit. aqilan daaji xelu. fatinan daaji xelu. mun a saal xulxi nga de ko ñu sellal jikkoom mm-hmm. xam tey seen teey mm-hmm. mooy teya di guy def guy waral def yëfi bala mbax yëfi nita di mm-hmm. waan xadabin ak ci mer bul doon borom jikko bu ñaaw lu jar mer lu jarul mer yëpp nga de mer wala soo meree bu féexal jotee doo féexal yëpp ëpp naa def danga doon ku teey danga doon ku baax itam mm-hmm. da ngaa doon ku xam fu ñuy teg nit mm-hmm. waaw wa kun na nga nekk kariman de ku tedd mm-hmm. nangoo muñ yu bari nangoo jëriñe ci yu bari nangoo yaatal nit ñi ci yu bari xaliman daaji lewet nga xam nu ñuy àndeeg nit xaqilan daaj xaqilan daaji xelu nga xàmmee bu baax mm-hmm. fatinan daaji xelu mm-hmm. mun a saal xulqi mm-hmm. da ku ñu sellal jikkoom an taysin wali eh, tooy wa an xadabin ak ci mer wasunte na nga ñoŋeel lisaanaka sa lammiñ min hajwin ci ŋàññi ba doon ko fonk teg ci nit tekki nit loo di tekki garab nit loo jagadi hmm. loolu bu nangu muy sa waxin hmm. bu nangu muy sa waxin dégg nga hmm. tekki garab nit lu jagadi waaw bu nangu muy sa waxin waaw selum bu baax a baax selum bu baax a baax ndax ñaaw rek mooy waral def loo ñaaw mbaa wax loo ñaaw waaw waaw wasu na ngay ñoŋeel lisaanaka sa làmmiñ min hajwin ci ngañ yi mm-hmm. mooy da teg ci daram nit loo jagadi mm-hmm. loolu bul nangu muy sa waxin mm-hmm. ndax kajam dëgg la te danga war a sellal sa kàddu wa min safahin ak ci dof waxi dese selum ku baax a ku baax a baax waxi wax boo xam ne indiwul benn njëriñ selum ku baax a baax te bàkkaat mën na jaay juddoo na mën na jaay xeexoo yooyu bu ko nangu de werante ci lu du dara wala de wax de saagaak yu kenn xamul yooyu kenn du ko waxee yooyu baaxut yooyu baaxut dégg nga yooyu bu yooyu du ñu ko waxee baaxut waan muhawaratil awbaas ak waxante ñu suufe ñi ba di man noonu laa ko teg mu jaawara affaire dëkk kooku lu ci làmmiñ te làmmiñ la ñuy wax yi nga koy wattu te mm. loolu mm. làmmiñ kay xanaa bal waxee nii bal waxee nii waaye affaire dëkk lu ci làmmiñ la te mm. looleen baat bi waaw nusxa yi waan mu jaawaratil awbaasi waaye pour man waan mu xaawaratil awbaasi daal moom buy man moom danaa ko mën a dégg waaye leneen moom man mënu ma ko dégg de waaw gis nga ko bu baax baax nusxa bi ci muñ ma woon xasayid yaakaar naa ne boo demee mujaawara moo ci nekk xasida bi foofu lañ ko daan man foofu laa ko daan jàngee bi nusxa yi génn gu xasida bu mu yàgg xam la waaye foofu laa ko xamee woon nag foofu la foofu laa ko jamono bi muy jàng Ibnu Malik boo fekkoon ne ma xam ko daal ñu ko jàngee fekkoon ne ma xamoon ko nag. waaw nusxa yooyu mu jawara ma jaan daal mu xawara laa ko teg. xelal bu baax mu xawaratil awbaas yi. ak waxanteeg way suufe yi. xelal bu baax a jom. loolu bu ko nangu waaw bul di nangoo werante koo xam ne wax yow rusu koo wax te loo ko baax a baax bul ne yow li muy wax bëgguloo koo dégg yooyu bu koy nangu da ngay wax ak koo xem ak da ngay wax ak koo xem ak jom te baax a baax koo xam ne wax yow man ngaa waxee noona man ngaa dégloo noona waaw te lu ko baax a baax nit dafa war a xam mën a waxat man ku da waxat xam bu baax waaye du ko daj ko dajee rek war a waan hmm. muhawaratin aw baas yi. Hmm. ak waxanteeg ñu suufee ñi. Hmm. bu ko dee nangu. wal kasi bi fen itam ba koy nangu. del wax dëgg rek. ndax fen bëri na foofoo gene fa lay jëriñee. daf faa loree rek. bëri na foofu ne daf la faa lore fekk foofa amale njëriñ rek waaw kon ñu jàng lool ba beneen yoon te fenn koo gis mu bëril ko rek xamal ne ngëm ngëm yàllaam dara def na ca mos na ci nifaaq dara dañoo wax ne mandarga yi teg na nit ki naafiq la ñetti yëf la ñett yooyu kum ne ci moom naafiq dëgg la baxu ci dara ku ca mos dara mos na dara ci nifaaq Hmm. de waxtaan de fen hmm. ak de de de xote ak itam ay xote naa ak ak itam buñ la joxee kóol rek nga jàpp ayatul munafiqi sala ku baax du fen wax dëgg rek wal kasib ak fen ñu jàng loolu war nañu doon اتصال الرضا عن كل ملتبس بها وكن للعلا والمجد ساتلبي ولا تقل إن آبائي صرفت بهم ليس الفتى من يقول اليوم كان أبي وكن صبورا على غيث الحسود فما yusaanu in wudi al yaquutu mm-hmm. fi lahabi mm-hmm. la yastawi al haqadu mm-hmm. min durrin wa min wadain wala sabikatu min sufrin wa min dahabi kaza tabiatu min xubsin wa min karamin walhanzalu lmurru la yaxtaasu birrutabi wa kun ala salawati alxamse ali jàng loolu waay mu ne wax fas na ngay wattu mm-hmm. xisaala rida jikkoy ngërëm xan mm-hmm. kulli multabisin mm-hmm. walis bépp aji lëntaloo biha ak moom mu ne danga fexe nga jikkoo jikkoy mbaa te bañ de naxu ci lu niroog jikkoob mbaa te du jikkoob mbaa maanaam jikko mbaax boo gis rek hmm. dafa am mile bu nekk hmm. boo xam ne su ci xàggu rek hmm. du do jikko mbaax bi su ko romboon itam du do jikko mbaax bi su boobaa nag jikko mbaax bi boo ko soxlaa da ngay fonk misaanul adli ngay wattandeku ifraat mooy jéggi dayo wala nga ne wattandeku tafrit mooy sàggan masalan tey bokk na ci jikkoy mbaax yi mm. tab mm. asaxa tabe mm. moo di lu ñar lu ñor lu jëm ci faj soxlaab diina lu jëm ci sàmm sa xorma sa der sa wattu sa muruwaa bu ñëwee xol bi mën naa wuusalal nga def ko ba rafet bu fekkee yëfi yàq nag hmm. xam nga ful la ju toll ni sàmm xor may xalal hmm. bañ ko jaa dugal hmm. jikko boobu mooy saxaar su fekkee yow da ngaa foofu di pasar pasaree rek lu ñor ak lu ñorul yëpp nga def ca la tuddee di koo tabe yàqkat la laa tuddee mooy tabsir mm. bu rombee fi mu war a xem rek yàq la mm. wala tubaddir tabsira mm. inna almubaddirina kaanu ixwana sayatin su fekkee ne yow da nga fonk xalal fonkin woo xam ne liñ ko war a sànkee man la ko jaa def loolu mooy buuxlu loolu itam baaxut souvent da nga nekk ci digg bi bul nangoo àgg ci tafsir mm-hmm. waaye bul hem ci buxlu nag su mm-hmm. waa ci digg nga nekk wala tañal yadaka mm-hmm. maxlulatan ilaa unuqika nit warul doon koo xam ne loxom dañ ko takk file rek du mos a tàllal ta wala tasura kullal bas waaye bul tàllal a tàllal rekki nag te loolu ni mu demee buñ demee ba ci sajaa njàmbaar moom itam jikko bu diina tagg la waaye ñaar yëfu ko séq nag yoo xam ne lu mu ci mën a doon rek baaxut mm-hmm. seetlu baax a baax mm-hmm. loo xam ne ci walanteeru lay sottee mm-hmm. jar na walanteeru nga xam fitu engagé ko engagement bu tegee ci yoon ba sottal ca lang sottal bala wala bala ci yàlla dogal xam loolu mooy sa jaana waaye li ñu war a xamula fitu walanteeru ko mm-hmm. loolu mooy loolu mooy jub nu ragal mm-hmm. baaxul mm-hmm. waaye def yi fi bala mbaxa ngi tam nag lu ne rek nga dugg ca seetoo nii la war a tëddee seetoo la war a tëddee amoo paal ci li nga war a faale loolu mooy taxawur te xam nga fit bu àndut ak ñaw du njàmbaar taxawur la rek baaxut xam nga seetloo la ko baax a baax seetloo la ko baax a baax su boobaa nga xàmme sajaa ak tahawur mm-hmm. nga xàmme itam jóot ak tafsir mm-hmm. xàmme leneen leneen jikko mbaax boo gis ñaari ñuy tagg rek mm-hmm. dafa nekk ci diggante ñaari yëf yo xam ne bu bu xaagu doon fi mu toll rek du doon jikko mbaax su romboon fi mu toll nga xam ne ñenn ñi dañuy jël turu jikko mbaax da ko jox te duu ko yooyu tur bi um la ci nag mm-hmm. affaire tabdir am nañu koy tuddee tabe mm-hmm. waaye bul nangu muy loolu selum mm-hmm. baax a baax affaire ragal am nañu koy tuddee fogoru jóg ci sa waaye bul nangu muy loolu selum baax affaire taawur am nañu koy tuddee njàmbaar waaye bum la ci yóbbu waa fas na ngay wattu xisaala rida ngërëm yi an kulli multamisin walis bépp aji lëntaloo bi ha ak ñoom wa kun na nga nekk saa talabin de borom ak sakku. lil oola wal majdi. heure bu nekk rek da ngay góorgóorlu. ci loo xam ne moo lay jural kowe. ci loo xam ne mola lay jural tedd nga. wala bal de wax ne. inna aabaa'i samay baay. saruftu tedd naa bihim teddee naa bihim ci ñoom. bal wax ne man gannaaw xas naa am bu rafet. xas nañ ma xam mm-hmm. loolu doy nay ndamoo mm-hmm. du mu góor góorlu mm-hmm. loolu bu ko dee nangu waaw bu ko dee nangu bu ko dee nangu dégg nga di du bu rafet man nga koy am mu jëriñ la lam la jëriñ waaye nag wax dëgg yàlla góorgóorlu bëri ku ñoo damu ëllëgin nag wàññiwul dara de góorgóorlu bëri ku ñoo damu ëllëg moo gën nekk bi di demoo ñëw démb rek de. Mm-hmm. <laughs> moo gën de moo gën nekk bi di demoo ñëw démb rek de. Mm-hmm. lay mm-hmm. man di ko xam ni xoolu dafay wax al yawma tayran kaana abi. sama bàyyi moo fi lii moo fi laa. te mun a wax maa fi maa fi laa. yow foog ne ko bopp sa bàyyi de su ko boppam du ngeen moom du sa mat. kamalul xëyri. Hmm. <laughs> lu ngeen jegeante jegeante hmm. ñaari nit alfata man yaquluha anasa. Hmm. waa ji mooy ki naan maa alfata man yaqulu kana abi. Hajjaj ibn Yusuf. ci jamono. buur bu la woon. bëri woon lu mu jàpp ni tur daal mooy mu biir dafa amoon heure bu mu waxoon ne bu jotati kuñ dajee ci mbedd yi dañ la jàpp loolu la waxoon ak boobu jotee ndawi buur yi ñuy bàyyi xel barab yi ñuy xaaye kuñ dajee jàpp la mu am benn bis mm. am ñetti gars yoo xam ne dañoo hànd mm-hmm. dajeeg ni ci service ñu jàpp mm-hmm. bañ leen jàppee mm-hmm. laaj leen kenn nga wax ne moom de bàyyam bàyyam ba mu ràññee ko ba tey mm. ba léegi mm. musul gis mm. tànki bàyyam jógee ci dëxal bu ne bàyyi na war moom wax bi li muy niru mooy bàyyam jàmbari xare la bi ñëpp ko xam li mu wax loolu la niru kenn ki bañ ko laajee mu wax ne moom de bàyyam mm. fu nekk la nit de ko di dikk ci moom mm. ci nam buy bàyyi mm. kon bàyyam sang la bu bokk ci ajwaadu maarif kenn ki ñi laaj ko mu ne bàyyam de yàlla may na ko heure bu ko neexee mu jël xaalali nit bu ko neexee mu jël deret nit kon bàyyam jàmbur dëgg la mm-hmm. ni waxee loolu lay nit ñoom ñett biñ leen jàppee kenn kenn ki da wane bayan te bu nit ñaa ngi ñëw ci moom mm-hmm. ci nam fay benn yoon kenn ki wane bàyyam ay tànkam mosul de mosul dañ ci dëri teg kenn ki wax ne mm-hmm. am na sañ-sañu bu ko neexee mu jël ci alali nit ñi wala mu jël ci dara ki nit ñeneen ñi daal jombul ni ñu xam ne juddu daal seen mbir jar na tey jar na tey ndax itam borom kilifa moom dana jël bàyyi xel ñu gëstu leen ki waxoon ne bàyyam cinam du fay sër bu nekk nit ñaa ngi koy muy leen lexal bàyyam day togg ñebe di jaay bàyyam day day ki waxoon ne bàyyam saa hmm. su ko neexee day jël ci dereti nit ñi ak xalali nit ñi hmm. bàyyam day nàmpatal ñu de ko fay bàyyam gëre la bàyyam de def de hmm. ki waxoon ne tànki bàyyam du jóg ci dëxal ndeke bàyyam day rabbu rabb la seetlu ko baax a baax seetlu nga ni ñu réyalee seen bopp ci kàddu ak nit ñàkkee solo hmm. xam nga lu leen ko may hmm. mooy jàng ràññi kaddu loolu moo leen ko may ràññi kaddu moo leen ko may xajaaj hmm. daf leen baxal ci la waxoon ku nim na man sita waxta sib adaban yox nii que hanin nasabi mu ne ku la neex nay sa baay waaye saxeel ba nite rek lu mën a xew da nga mën suqali sa bopp na man sita waxta sib adaban يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي ابن كيليان ليس الفتى من يقول اليوم كان أبي كان غبارة قد يبدن الندم أبد الندم كان غبارة قول جزانا قول جزانا noonu la ci tegu waaw wala taqul bal wax ne inna aba yi naka samay baay hmm. saruftu teddee naa bi biim ci ñoom hmm. laysal fata déet waa hmm. eh, man di koo xam ne yëqoolu dafay wax al yawma léegi naan kaana abi kaana abi wakkun na nga nekk sabooran di muñaakoon ala xayril xasoodi ci meram xañaanakoon nit man da jëmmal mbaax mm-hmm. topp ko ba mu sotti mm-hmm. te amul noonu mm-hmm. déedéet ndax am na ñoo xam ne maxluqoona li sërri lañ pour mbon rek moo tax ñu bind leen duñ mën a ànd ci baax subaa nag ni ngay jëflanteeg ñoom mooy muñ seetlu bu baax a baax fa ma yusaanu déefu ñoo ngi ñaawal al yàquutu wurusu yàquut in wudi an ndegam tegees na wurusu yaaquut fi lahabi ci tàkk-tàkkat mu ne wurus ko ci safara du ko de wàññi dara du wàññi ca foraay ba te dana ci jëlee gën a taaru bu yokk xiimaam naka noonu itam nit ku yiw xam tooñkat bu koy tooñ mu tàjjo tooñe tooñi tàccu it mu rafet mu muñ ko muñ yu rafet du wàññi ca hiweem nga dara te dana dajeeg la muñ de jëriñ mm-hmm. te itam loola bàyyi ko ca tooñkat ba mm-hmm. dana lum ko xee lum xamu doon wa kun da nga nekk sabooran de muñaakoon xalaa mm-hmm. xaydil ci meram ko xañaan fa ma yusaanu défu ñoŋeel al yaqootu wurusu yaqoot in wude addegam tegees na al yaqootu billahabi ci tàkk-tàkk la yastawi du hemoo mm-hmm. alxeq du caq mm-hmm. min durrin ci wurus mm-hmm. wa min wadain wadan yaakaar naa mooy xoori paañ loolu laa ko teg xoolal mu ngi de ah. du moom waaw hmm? ah. am nii de waaw ah. mu ne ki bënn ci xoori paañ yi ba mu dee caq mu sol ak kaami wurus mu sol ne bokkuñ de ki nga xam ne suufee di mbiram ko ci la mën a nekk ak ki sama borom tànnal mu kawee ci bu muy nekk ci lu kawe suñ bokkee dajee it mënuñoo yem moo tax wa tax mooy pañ mooy koori pañ yi dégg nga waaw la yestawi du xemoo alxeq du càq min durrin ci wurus mm. wa min wadain ak ci wada mooy koori pañ dégg nga xëy na ku baax a baax mm. wala sabikat mm. min sufrin mm-hmm. wa min dahabi mm-hmm. yaakaar naa mooy përëm mm-hmm. wala tamit yoonu jàngeen boni min sufrin ci sufru mooy përam xañ na wa min dahabin ak wurus waaw xam nga përam ak wurus kasaanaka noonu attabihaatu jikko yi min xubusin ci mbon wa min karamin ak tedd nga nun koo xamee jikko jikko baax ak jikko mbon mënuñoo xemoo su baax nag ku su baax ku baax ku bon xemuñ mm-hmm. ki bon ba faree tooñ nag mm-hmm. la mooy def yow mi baax mm-hmm. bone fa nga ko jaa fekk dafa yàq dara ci sa mbaax gi mu ngi mel ni ki xamee takkaay ak ku xamul takkaay rek yow su ngeen songoo mu dagg sa takkaay bi da koy fekk ci ñàkk takkaay rek kenn ku baax a baax walxandalu xatar al murr bu daa ji weex bu daa ji weex la yaxtaasu du xiyaasu mooy duñ ko nattale mm. bi ru tabi ci lu tab mooy kàndar may mbanax jote xetu mm. kenn du ko yemale xamsa amsal de mm. waaw kon ñu jàng lool ñu waajal waxtu yi waaye beneen incha allah mu ne wakkun na nga nekk muhtabidan daaji wat xal mm-hmm. salawaati ci julli yi mm-hmm. al xamsi yay juróom mm-hmm. mu ne na nga fonk julli yi juróom bu baax a baax selu fa inna tarika naka kuy bàyyi julli yi juróom muskin aji sappo la mu mooy ku jege la alamata bi ci alal mu ne wàcc julli xaw yoon waala ku la ponki lislaam yi mm-hmm. nit su fekkee dafa liggéey bañ ne du génne asaka mm-hmm. yoon moom bàyyee bañ ne du génne asaka mm-hmm. bu yoon santaane ni nañ ko rey dafa wax ne nañ nangu waale jël asaka jël bàyyee ko li ci def waaye du wax ne nañ ko rey nag ah. ki yi ni da mën a ajee màkk yëpp dajee na ci moom waaye mu nangu waa ji yoon bu yoon wax ne nañ ko yow su fekkee da ngaa ba ca kanam nga bañ ne doo war tey jii bu tax ñu ne nga rey dañ rek xam loolu lañ lay wax waaye julli nag ku ci bañ génn moom dañ ko koy def loo da ko xaar fekk ba dërër yi mi di desee kem benn bu jógut jëm ca yoon moom reylu na ko ku fi neexal yoon bu dikkee da ko rey borom suriya bi nag xam na ku dee mm. du defati lenn mm-hmm. loolu lu baax xam na ko mm-hmm. waaye nee na ki bañ a julli moom na dee mm-hmm. mooy ki bañ julli xaaratuñ ci moom lu baax loolu moo tax mu lu baax waaw ah, borom bi lu muy bëgg-bëgg ñi baax te xam na ne ku xas ba dee moom lu wéyoon ci moom wéy na li wax ci ki bañ a julli mooy na dee rek waaw ah, mooy xaaratuñ ci moom defatuñ ci moom leneen loolu moo tax nit du ko sàggane fa inna taarikaha naka aji baam musfin aji sapp la xanaan xatta bi caala ko dafa am kenn ci njaboot ak Abdullah ibnu Subayr Subayr ibnu Nawaam kenn ci njaboot ak Subayr ibnu Nawaam ci sëtam laa ko teg Subayr ibnu Nawaam kenn la ci saaba yonent bi kenn la ci ñi ko jege woon loolu itam mm. mbokkam yonent bi la mm. Safiya bint Abdul Muttalib mooy yaayam mm. kenn ci njabootam dafa xiroon ci diina lool yàlla dogal mu feebar feebar bi diis lool ndeke feebar boobu ci lay faatoo waaye nag lu mu diis bu julli jotee dana wax ne nañ ko téye yóbbu ko ba ca jullee gaay ba mu ànd ak ñu julli waxtu jot boo mu àgg ci lott fu soree soree soree sori wax ñi koy taxaw ne dama bëgg ngeen dimbali ma ma dem ci jullee gaay ba ànd ak ñu julli ñu ne ko fi ne ma li ngeen wax yéen wul maanaam hmm. man ba may man hmm. war a jëmmal àddina hmm. la ma sëqoon ak sama borom de ko def de ko def de ko def dem ba nga xam ne fi mu ne daanaka kenn deseetuma ku dul moom may wax ne du ma ko def loolu yéen wul maanaam man ba maanaam li ma daan bëgg ci àddina dama daan waaw de julli ji te yàlla tax su ma dem a dem ba jàpp ne àddina seen tuutuma ci dara dara dara deenu ci yàlla ngeen ne mënuma ca yenu léegi daal man bu ngeen a mënee dimbale ngeen dimbale ma su ngeen ko mënul ngeen bañ waaye na ngeen ma dimbale na waxee kenn mënu caa teg dara dañ ko dimbale ba ca jàkk ja biñ kàbbaree rakk bu njëkk bu ñaareelu ci la ci la faatu ci la faatu ci la faatu nit yàlla yi xamuñ sàggane julli ñoom xamuñu ko du seen mbir du seen mbir gis mm. naa mm. mm-hmm. mm. ko gis naa ko ji ci ci nadratu naayam su mu ma affaire julli lu ma ne si yàlla seen mbiri julli gis naa ko ci moo tax ne fa inna taarika naka kuy bàyyi julli muslim aji sab wala halal hatta bi ci halal xasil mm-hmm. na ngay xamal faraidaha ay farataam xibdan mm-hmm. ci mokkal wa maarifatan ak ci xam danga fexe xam farataam yi ndax farata yi mooy dikk mhm. ñu door ko ante ne yow li nga def nii julli la mhm. waaye farata bu dikkut mhm. leneen la nga def rek du méritoo ñi ko tuddee julli il faut mooy dikk kon yooyu na ko xam bu baax a baax ay e farata yi ak ay e sarta yi da e jëf ya ca wax ya su ko julli moom ay farataam neex nay xam xam nga jaamu la goo xam ne lii jëf la lii wax la mm-hmm. ay yëngatu ak i wax ñooy daje mm-hmm. ñu door a wax ne nit ki julli na mm-hmm. su ko defee lépp luñ caa def farata la lépp lépp lu ñoo def ci julli rek farata la su moyee ñetti yëf booy kabar kabaru harman yëkkati bi nga yëkkati ñaari loxo loolu lu ñoo def la du farata boo xamee ñaar rakk ba jataayu détail mm-hmm. jataay boobu de lu ñooy def la mm-hmm. te duut farata mm-hmm. booy wax asalaamaaleykum dangaa tourné ci sa booru ndeyjoor tourné boobu lu ñoo def la te duut farata su ko mooyee julli lépp luñ cee def rek farata la xëpp nay sàggane dangaa sujjóot ba mat dangaa rukkon ba mat nga siggi taxaw ba dal mm-hmm. nga sujjóot ba dal mm-hmm. siggi toog ba dal mm-hmm. dellu sujjóotaat ba dal yëpp farata la waaye julli lépp luñ cee def farata la su moyee ñetti mbir rafal ya day ni hendal ihram loolu day jëf la te duut farata ak aljuloosu li tasahuli loolu it day jëf la te duut farata Mm-hmm. ak attayaamunu bis salaam yi mm-hmm. mooy ndejoor lu sëlmal mm-hmm. loolu it day jëf la du farata su ko moyee nag lépp lu ñoo def ci julli ëpp na de sàggane xamal ne farata la xam nga ni ma la ko waxee de xasil faraidaha dafa ne na nga xam farata yi dama la koy wax ci bu gàtt rek lépp luñ cay def farata la su moyee yëkkati ñaari loxo ci kabaru xarmal loolu day jëf la mm-hmm. te du farata mm-hmm. ak jataayu pour jàng taaya mm-hmm. loolu it day jëf la te farata ak tourné ci sa booru ndeyjoor booy sëlmal loolu it day jëf la te du farata su ko moyee julli lépp luñ jaay def farata la kon yëngatu bu mën a doon ci julli rek da nga ko war a topp ba àgg borom suñu bi doo xam ne fii la gërëm waal ay jëf ak i ay waxam dara dut julli lépp lu ciy wax mm-hmm. ñett rek moo ciy farata mm-hmm. su ko mooy xamul ci julli mm-hmm. lenn luñ naan wax ga farata la mooy kàbburu harmal bi nga koy tàmbalee allahu akbar boobu nga de ko tàmbalee de moom dee wax waaye farata fatiha bi ngay jàng moom itam wax la waaye farata la assalaamu wax la dañoo safaanoo jëf yi lépp de farata mm-hmm. su moyee ñetti mbir yëkkati ñaari loxo xendal ihraami mm-hmm. al juloosu li tasahudi mm-hmm. attayamunu bis salaami yooyu rek ñoo duut farata ci jëf yi su ko moyee lépp luñ cee def farata la bu dee wax yi ñett rek moo ci doon farata su ko moyee lépp luñ ciy wax benn dañ naan sunna la wala ñu ne dañ koo sopp ñett yooyu benn bi mooy kabbaru harmal bu ñaareel bi mooy jàng fatiha mm-hmm. bu ñetteel bi mooy asalaamualeykum mm-hmm. su ko defee kaburu harmal bi mm-hmm. moo génne bi ñooy ànd allahu akbar nga koy waxee diggante hamsa ak allahu gi ak raa ak baru gi foofu ngay yéenee li nga bëgg fatiha bi da koy jàng ba mat mël bi boo koy def pour muy sëlmal dafay ànd ak alu maarifal bi asalaamualeykum noonu lañ koy waxee dee la demee xanaa xam nga farata yi xiblan wa maarifatan la dégg la rek la loolu rek la wala bal de sànk nag laa ñaal julli yi alawxaata waxtu yi fii sababin ci benn sabab nekk ci lenn nag ba la bàyyi julli ba waxtu wéy loolu ëpp naa de waaw yonent bi mos nañ koo laaj jëf yi lu mu ne asalaatu li waxtiha mhm. su julli jotee nga julli mhm. kàlla ngu baax a baax mhm. sëriñ mu ne daan wax ne noddkat bi fay wax ne yàlla gën a màgg li ngeen nekkee waaw mu ne mu ne loolu leen góor gi daan mu ne allah ak mu ne noddkat bi fay gën a màgg li ngeen nekkee kon lu waay mën a neexee fa ko war a baax yàlla wate na a xammaa qalilin ci lu yàgga di rek mooy ci lu néew rek bi hawlillahi ci kàttanu yàlla tubsaru def na la gis fi sadril mahafili ci bopp mbooloo yi li tadris ngir joxe xam-xam mooy jàngale ko nuxa bi ak génne ay tànnee fi baat mu ne ndénkaaneem di leen soo toppee ci wàllu njàng ak wàllu din diina danga am xam-xam xam-xam ba dana barke du yàgg rek nga mën caa jëriñu da ci jëriñi te lu baax a baax te koonu xam ne danga nekk lil jamee ñaal mbooloo xudwatahum de seen royteef fil mihrab yi ci mihrab hmm. mihrab mooy fi imaam yi taxaw ci jàkka yeeg jumaa yi mën hmm. a jiite aw nit jaamu yàlla hmm. rafetal jiite ga wa tartaqi nga mën a mimbaral ajdaadi mimbar a defe xutba mm-hmm. mooy lii yi mm-hmm. baxoon mm-hmm. yow du rek lii ngay feeñal fasahata sahbaanin fasahat sahbaan waa il ku mënoon a wa tansuruha te nga de ko bi mantiqin ci tudd raiqin bu daa axlaa bu gën a neex mu ne dara bi ci lem mm-hmm. saa sooy wax yu fasaa mm-hmm. wax wax yu rafet mm-hmm. wa taktasi ngay hoddoo xolalal xel mi koddayi xam-xam alladi xam-xam mi nga xam ne talaat fenk arba bu ay boroomam fi daya jil jali ci lëndëmi réer kasuut mel ni ay jum mm-hmm. ci ngay amee xam-xam boo mën a bokkee ci deferkat yi mm-hmm. loolu may wax bi ci ngay amee xam-xam boo mën a bokkee ci deferkat a mm-hmm. awa tagta si te nga woddoo wala mi ko day xam-xam allah bi xam-xam bi nga xam ne talaan fenkan arbaabu aw ñooñam ay boromam te day ajal jële ci dëndami réer yi kasuut mel ni jum yi waaye ñu bàyyi xel faraidu salaat yi anam bu gàtt la yomb na torop indi yow daa ko bii moo def wala def na beneen man faaraqa al ilma xalla dullu saaxatahu walam yuazzam walam yukram walam yuhabi kam min sagirin yura wal helmu kabbarahu mu ayyadin tahirin li nafsi muktasabi wa kam kabirin yura wal jahlu sagharahu mubakkatin xaamilin fi dulli wal xadabi fanzur ila hikmatir aqdaari kayfa jarat فيذا وذاك الأمر غاية العجب وبعد يا أيها الأستاذ أنت على تهذيب ذا الطفل لا تغفل ولا تغيب kon ñi jàng loolu mu ne man faaraqa ku tàggaloot na mu alxen ma xam-xam ni su joxee gannaaw xam wutu da xam wut da jaxasoog ñi xam mm-hmm. wut da jëfee mu dëppoo xam-xam wut da fas mu dëppoo xam-xam mm-hmm. moom daal na neexee ci bakkanam rek la mm-hmm. mooy noonu ku ko mel xal la wàcc ak dullu toroxaande ana nana say na xal la wàcc ak dullu toroxaande saatawoo ci dingaréem mu ne kooku den gannaaw dikkal na ko wala mu atam défu ko màggal de ndax màggut walam yu karam de bu ko teral de hmm. ndax wutul teraanga hmm. walam yu ab de bu ko wegit di hmm. ndax amul melo wuñ koy wegee dana ku baax a baax waaw ah, nit su fekkee ne ba bañ a kar dal du desaray gannaaw li njëriñal àddina njëriñal àllaaxira waaw ah, nit su bañ a kar dal li njëriñal àddina njëriñal àllaaxira nekk loolu du ko desaray gannaaw daf koy sàkku wala mu wane ne sàmm na ko al imaamu al Xasaali radiyallahu anhu bàyyam du doon ku am doole dëgg-dëgg daan jaay yére wala daan liggéey hicc waaye du doon ku am doole dëgg-dëgg waaye bëgg bu mu bëggoon nag lu baax nag ak donte bëriwul doole kem li muy xam mu àttan cee jëriñ ñi liggéey xam-xam ñi liggéeyal xam-xam mm. mm. yaakaar nañ ne barkeb loola mm. moo topp njabootam ba xasaali mel ni mel xasaali dafa amul kem rek waaye terewul ay bokkam borom xam-xam ji Ahmad mi bokkal ba xam-xam la moom itam gis nga ko bu baax a baax ibnul asir seen bàyyam asir lañ koy wax ñett lañ ñoo xam ne banul asir lañ leen wax ku ci ne ibnul asir la siiwee mm. kum ci mën a do ay taalifam ràññeeku na mm. kenn ki moo liggéey nihaaya mooy mm. abu saadaat majduddin moo liggéey itam almuxtar min min manaqibil axyaar moo liggéey usdul xaabati yaakaar naa keneen ki moo lëggee ak taarixul kaamil al kaamil bi taarix mm-hmm. keneen ki mm-hmm. moo lëggee al masalu sayid bi adabil kaasibu sayid téere yi xama xama xama xam lañ mm-hmm. seen bàyyi asiir dafa amoon man-man bu buri xamoon na man-manu àddina te man-man ba taxu doon mu fàtte lu baax waaw ah, taxu doon mu fàtte lu baax attan ja lu ne moo tax gannaaw barke bu bàyyi ci ñooñu dégg nga. waaw naa mu barke na mu bàyyi ci ñooñu. Mm-hmm. wa banul asiri salasatu mu ne góor gi asir doomam yi ñett lañ taxaasa kullun mustaxar te ñëpp a baax fa mu arrixun jamaxal uluma wa axarun waliyal wasar am na borom taarix borom taarixul kaamil dina ko baax a baax ak wasir bi nga xam ne moo bind almasalu sayir fi adabil kaati wa sayir ak borom hadis bi nga xam ne mm. moo lëggéey nihaaya moo lëggéey téere bii nga tiim mm. waa lëggéey itam usdul xaabati mm. waa nihaaya am na fi marjan bu mag a mag la ñett ñaa ngi nii ibnul asir dund buñ ko waxee rek kenn nit moo ko moom dañ ko dee wax jublu ci borom taarixul kaamil dañ ko dee wax dañu jublu itam borom téere bii te mooy borom nihaaya dañ ko dee wax itam da ci jublu almasalu borom almasalu sayir fi adabil katil wa sayir waaw hmm. ah, waaye yooyu yëpp nag hmm. ah, kilifa ga leen doon taxaw hmm. dafa bëggoon lu baax lool dafa bëggoon lu baax lool waaye xam-xam moom ku ko jox wane ne xamoo ci soxla mu teel mu yàgg rek mu xaw nga yoonu bus moom waaw ah, mu ku tàggaloon na mu aneel ma xam-xam wane ne saxu ko hmm. ak lu mën a gëm ci àddina hmm. ba sax mu jàpp ne xam-xam saxu ko hmm. xal la wàcc ak dullu toroxaale ci dingiréem na xam ne xawale na boppam yoonu gudd walam yu àddam defu ko màggalati de walam yu gram defu ko taralati walam yu hab defu ko kam min saxiirin bëri na aji ci xat koo xam ne ay xatam boo koy compter bëriwul mm. yuraa def na ko gis mm. nga de ko gis mm-hmm. waneen mu te xam-xam kabbaroo màggal na ko waaye xam-xam sax na ko domat mm-hmm. nit mën na laa njëkk a juddu lu yàgg mm-hmm. waaye gën koo bëri loo xam dana tax yaa koy mag waaw ndax li ngay yëg ci àddina moom du ko di yëg waaw a nett li mu jiitu ma juddug maamee la ngay xam mu jiitu juddug maamam yee moom moom seetlu bu baax a baax hmm. waaw nit mu njëkk la juddu hmm. waaye bu seetee ni nga ko ëppee xam-xam hmm. dafay tax njëkk juddu la la def rek waaye ci maane yaa ko mag fuuf yoon waaw na loo xam mu jiitu juddu maamam ñoom xamul loolu wala léeg-léeg nga gis xam ne mu juddoo yàgg gudde bëri na ñu ko njëkk juddu waaye de mu aye den kër ku ñu te xam-xam mooy def loolu ci nit muayyidin a ku ñu dëgëral mhm. tahirin ku daaji laab li mhm. leen si tedd eh, muktasibin ku daaji fàggu li mhm. si tedd nga ne ku yàlla dëgëral ne ku labala ne ko ah, kam min saxirin bari aji ndawe ci yaa e yura léeg-léeg gis ko dem na ko gis wala mu ta xam-xam kabbara woo tax na koo domak muhayyadin kare ku ñu dëgëral tahirin mm-hmm. ku daaji laab mm-hmm. muktasibin ku daaji fàggu mm-hmm. di si tedd wakam kabirin bëri na ku mage lool ci xat koo bu yàgg la juddu yuraa def na ko gis wal jaalu tere saxaroo ndawel na ko waaye bu dee jaahilit da ngay fekk muy koo xam ne waaye tane wut nag gune yi mm-hmm. mu bakkatin de ku ñu suufeel mm-hmm. de ko xam ne lu ne rek loom pañam fa caa feeñ mm-hmm. xaame leen de ku fay de ku kenn xamul te dulli nekk ci toroxaande wal xata bi ak mer ak gune muy ñaxtoo ka mere ku ko deful dara fandur na nga seet ila hikmatil aqdaari jëm ci ñëw ak borom dogal yi keefe jarat ni ki mu dawee mm-hmm. saa ci kii nii mm-hmm. di mag mi nga xam ne saxara xool jëlu mm-hmm. wasaaka ak kële de a gi nga xam ne kabbara xool ilmu mu ne seetal lii lii de la am rii sama dund mooy sama ngiñ xayatul ajabi dayob kéemaan la mu ne kéemaan dëgg la mooy li muy wax musaahat la teg ci sa bët da nga janoo moom Fanzur na nga seet ila hikmatin ak xadaari jëm ci ñëw ak borom dogal yi. Hmm. yàlla bi moom dogal. Hmm. seetal ni mu tëralee mbir mi fii. Hmm. jarat naka la dawee fii sax ci kii. nga xam ne kabirun saxarahul jahlu. wasaaka ak kële. xam ne saxirun kabbarahul ilmu. seetal loolu. mu ne lii de la amri. sama dund mooy sama ngiñ. xayatul ajabi. day kéemaan la. su ko defee nag njàng moom. jàngkat ak jàngalekat ñoo ko bokk comme ci mën a dore dafa am luñ soxla ci suñ demee bay wax nag ku ci nekk dañ wax la soxla ci moom jàngkat wax nañ liñ soxla ci moom boobu léegi mu ne ñuy dénk mu def jàngalekat bi mu ne wa baxdu ci gannaaw loolu nag gannaaw bu ñu paree nag euh, ci jàngkat bi yaa ayyuhal ustaadu ay yow mii di jàngale anta yow mm. laa tax ful bal sàggan mm. xalaata bi bi sa tifli mm. ci sellal gële gune wala taxit te bul fàddu walit ko mu ne nit ki boo koy jàngal da ngay góorgóorlu ci taxawu ko pour mu xam li mu war a pour na nite te itam dooy xamale xamam ak ñàkk xamam mel ni gannaaw waxal nga ko rek sa yoon nekkatul ci moom da ngay li ngay def ndaxaw na yoonu am najaa mm-hmm. wala awut yoonu am najaa kenn mm-hmm. bu baax mm-hmm. yaa ayyuhal ustaadu yow bi la jàngalekat anta yow ala tahdibi sa tébli ci sellal gii gune mooy xamal ko yar ko niteel ko laa tax bul bul ci sàggan liggéey bi lim laaj wala taxif te bul ci fàddu te itam a xam bam rafet de ko xam afidu na nga ko jëriñ xel mm-hmm. man xam-xam mm-hmm. na nga koy tegtal li gindeegum nekk mm-hmm. li xiwéem nekk wa kun na nekk fii maa ci li nga xam ne tuallimuhu da nga koy xamal gune gi mislal musahisi demel ni aji daas mooy aji namm yub di ko dana mu feeñal raw naqat zahabi taara wurus mm-hmm. dangaa mel ni ku am wurus mm-hmm. bëgg taar ba génn mm-hmm. nam cay xàttanee rek naka noonu na la nitee na loolu am na ko nit ñëw nekk waaxsimul xawla minni خير البرية من عجم ومن عربي ما أضحك الروضة دمع القطر منهملا وغرد الطير في الأدواح والقدب لا يستوي دهم صغر التعليم xam le ci jamonoy ndaw ma kibarin ànd mm-hmm. ak xamle ci jamonoy mag mm-hmm. nit ki liñ ko jàngal te booba mu ngi gune mm-hmm. ak liñ ko te booba mu ngi de mag duñ bokk nu leen xelam de jàppee ndax xam-xam ñaari yëf dana koy tereefaa ci xel fekk xel mi yu bokkul moom jiitu ca ba fees ko dell te yooyu mënatuñ koo xabal suba day ñoo borlu rek loolu ci xolam mag lay xam bëri yu ca fees dell buy xolam gune yooyu xamu ci wala fekk xol bi te li muy bàkkaar ko ba du fi am place buy xolam gune yooyu xamu dafa nekk xol bu féex rek su dara duggee day placé bu baax a baax loolu moo tax njàngam gune ak njàngam mag mënuñoo xem fa liinu nooy hmm. fil xusni nekk na ci bànqaas hmm. yar bu ndaw moom nga mën bëj ba mu jub hmm. wala nga tàggat ko dëngëreeku nu la neex loolu yar bu ndaw ci ko man lay liinu déet nooy fil xarta bi dana ci mat waaye bant boo mag wala bant boo xas ba wow dootul bu bëj gune moom nga mën a tàggat dindi ci moom lu la neexut wala def ci moom lu la neex mm-hmm. waaye ki xas ba de mag mm-hmm. kooku moom la ne ca moom mm-hmm. moo caay ne dangaa seet la ne ca moom kum ne ci moom nuñ war a àndeeg moom rek nga jéem a andi nga woo seen diggante waaye dindi ci moom lenn moom kooku du yomb seetlu bu baax loolu nit ki toll ci jamonoy yar dangaa taxaw ci moom li jar dindi ñi dindi ko li ci war a nekk ñi nekk ñi ko ci moom waaye su rombee jamono yare hmm. def ci moom dara dayta hmm. dindi ci moom dara dayta hmm. la yestawi du yemoo si xaru taalimi xamle ci jamonoy ndaw maa kibarin ànd ak xamle ci jamonoy mag fa lii nu nooy fil xusni ci bànqaas lay xam mooy yar boo ndaw lay sa lii nu déet nooy fil xaata bi da nekk ci matt wal taksuhu na nga ko xoddee moom gune googu hmm. min jamaalil xatti ci hmm. taaram mbind bajatahoo taaram xatta yuraa ba giseef la mbind hmm. duraran muy at duraran muy kem wurusu durru fii kulli muktatabin ci bind te itam na nga ko tàggat ci mbind mu xaw yoon mbind mu rafet ba ëllëg su bindee dara la bind war a jëriñ hmm. ma jëriñ hmm. a baax waaw hmm. ah, mbind mooy mottale ak taalibe waaye bu dikkul rek ba léegi taalibe gu manqué nga fa loolu moo tax nit ki boo koy jàngal da ko war a jàngalaale mbind bu baax wal tas kuhoo na nga ko xoodee min jamaalil ci taaram mbind ba jëta woo taaram hmm. na nga ko tàggat fexe def ci moom mbind mu rafet xataa hmm. yoraa ba giseew ko hmm. moom jamaalul xatti ci moom duraran muy kem wuru si durra fi kulli muktasabin ci lépp lu ñu bind waraaxe na ngay sàmm fii ci gune googu xuqooqan ay xaq yu xam ne anta yow mm-hmm. taalamuha da nga koo xam mm-hmm. nit ki bu ngeen àndee mm-hmm. dang da xam la boole la boole nag nañ ko war a sàmmee nga bàyyi xel loolu xel bu baax a baax ah gune buñ la ko joxee xanaa ba mu dikkee ci yow nga de bàyyi xel lam laaj ci jubbanti nga da bàyyi lam laaj mm. ci yërëm mm. nga da bàyyi lim laaj mm. ci wattu ba mucc xam nga ni ma la ko waxee de waaw xam nga bu baax a baax waaw nit bu ñu la ko joxee te lu bu baax a baax yi la booleeg moom nga da la booleeg moom lim laaj sa digganteeg moom lim laaj ci taxawu ko ba mu jub lim laaj ci di ko yërëm ci lépp luñ war a yërëm gune lim laaj ci di ko xaar ci lépp loo xam ne kuy seetaan man nay loru mm-hmm. yëpp da nga ko war di bàyyi xel mm-hmm. gis nga bu baax baax waaw mm-hmm. ah, noonu demee noonu demee nit ki du ne ci sa loxo te nga foog ne ndax rek yow waroo toggoo ci moom benn coono te noonu bu baax baax ndax it nag da xam bu baax ne borom bi tabaraka wa taala ku xam yërmande ci mbiri jaamam yi la te it nag ku xam lu jaadu ci ñoom la su boobaa nag bu leen xiiree ñu xenu si ci yow da ngay xam bu baax ne rek xen bu mu layeen ci biir njabootam la su boobaa la cay sa digganteeg moom dana jar jar di bàyyi xel dégg nga waraa xen na ngay sàmm fii ci gune googu mooy kooku ngay jàngal di ko yar na ngay sàmm ci moom xuqooqan ay xaq mm-hmm. ay cër yoo xam ne war na koo am ci yow mm-hmm. la leen boole mm-hmm. mu doon lu xam ne anta yow taalamuha da nga ko xam ndax itam ànd ñi te xamoo lu leen boole kon kenn ko def kenn du ko def kenn du ko def ba ñoo nekk jaamal guddi ko jaam ñu mos a wàlli xam ne yooyu moom daanu ma ci dem. Mm-hmm. affaire yi dox guddi yi caaxaan yi man noonu noonu mu gaaw mu dogoon yooyu man du ma ci dugg. Mm-hmm. affaire yi dox guddi moom man du ma mm-hmm. ko doon jëf. yooyu naan du sama mbir moom. yàlla ba dikk. yàlla sëñ bi ne leen. dañuy wàlleewoon. ba ngeen a dikk. am na ci koo xam ne xeet woo woowu la xaal ci ni seen dara humpu ma mu ne xam na ci yéen koo xam ne xeet woo nga woon xeet woo woowu la xam nga ni ma la mu ne sama borom nim ñawee ak yërmandeem ci jaam ñi déggoo ak muy leen boole comme man ci ñoom dara waaw sama borom kem ni mu ñëwee ak yërmande ji mam ci jaam ñi hmm. déggoo ak muy jël jaamam ñi da leen boole koo mënta xam ci ñoom dara seetlu hmm. ko baax a baax hmm. loolu moo tax ma ne ñaare koo gis rek sama borom di xiir nit ñi dayanu ci moom rek kum dajee rek xam na la leen boole xam na la leen boole moo tax ma ne yëlëm yi nga xam ne ay xàq la yu mu war a am ci yow te xam nga ko ndax xam nga li leen boole nga bàyyi ci xel yi nga xam ne ay xàq la yow war di sàmm seen diggante te xam nga leen mm. ndax xam nga li leen boole ah nga bàyyi ci xel mm. waraaye na ngay sàmm fii ci gune googu xuqooqan ay xàq yoo xam ne anta yow taalamuha danga leen xam min ha bokk na ci xuqooq yooyu asadaqatu xaritoo xam na koo xam ne bu dul mbokk goo jege itam kóllëre gu yàgg boole na koog yow su maraayu topp sàmm leen na sa bi xaskan na koo xam ne li ngeen bokk lañ na nga jokk ko yëpp na nga ko bàyyi xel waxti mu maa ngi mottalee alqawla wax min nii ci man bi salaati ci julli ala xayril bariya suma wax maa koy mottalee ci julli ci yonent bi ki gën ci mbindee fi yàlla yi min oji min laaloom hajam yi la moo gën ci ñu duut arab wa min arabin ak ci arab yi ñu duut arab ak ñii arab ñëpp moo leen gën maa ngi def salaatu ci moom maa at xakk feeg reeloona arrawda toolam dër damal xatri rongañal taw mun habilan mbirom muraaji dotteeku fekk nga xam ne toolam dër gàncaxam a ngi fireekoo ci wàcceeg taw waxarada ak fiir wéy na ak tayru njanaaw fil adwaahi ci garab mag yi mooy dajama yi wal xudubi ak yari garab yi ak ba pittax a ngee nekk ci kaw garab gu mag walla gu ndaw de sab Hmm. yàlla na salaatu bii di xam hmm. mooy fekk faw rek hmm. baax na ko beneen yoon incha allah